pourquoi Babacar da ngeen gis koo xamante ni war na jël sa place est-ce que vous avez un candidat koo xamante ni jàpp ngeen ni que il est pertinent et que li ngeen bëgg mën na ko. waaw euh, waaw xam nga ñun nag moom euh, fi mu toll nii réew mi ñun ñëpp ay sénégalais yow sax mën nga ko tey jii euh, képp koo xam ne am na yéene bi te mu dëppoo ak kayit lu ñu wax lu mel ni ngay nekk président de club. am nañ ci ñun suñu candidat bopp boo boo xam ne yaakaar nañ ko parce que nag acteur la. non seulement bokkul ak ki nga xam ne mosul def def def basket dafa basket teg ci nag mu am benn rang professionnel boo boo xam ne tey euh, du ñu ko dénk n'importe kii mais est-ce que c'est pas finalement la déjà ki ngay wax ni kan la. Euh, kooku Pathé Keita la tudd moom mooy euh, président wu GBA. mais mais est-ce que finalement nekkul loolu parce que yaa ngi wax ni boo bu fekkee da ngay invoqué waaye foog nga nekk basketteur am yenn passé yi est que nekkul loolu la finalement par exemple fédération bi la fédération héritée par quelqu'un koo xamante ne bon peut-être bon mu ngi mel ni entraîneur boo xam musul jouer foot quoi nga koy critiquer nga ne musul jouer foot moo tax mënul yor équipe bi est-ce que nekkul loolu finalement te loolu bon boo ko nar boo ko jëlee rek. du nekk lu objectif est-ce que c'est pas ça euh, ko sañ parce que ñun li ñuy wax basket ba ñu koy def ki ko créé musuta basket. loolu loolu la waaw non non déedéet dama mhm. ki ko créé mosu ko def te ñun tey jii yàlla dimbali nañu ci ñu def ci gañe ci ay teraanga bu wër ci àddina ba tey jii ñu yor suñu bopp yor yor yor ci suñu njaboot donc maanaam te ñoo taxe ko nit ci ñàkk ko def te ba ñu gis ne war cee war a mën a am place ah waaye nag dañu ne dañu koy xayma que dañ koy évaluer joueur bu nekkee ci biir terrain que dañuy évaluer ay performance am dirigeant bu yoree équipe tam dañuy évaluer ay performance am moom d'après deux mandats yu mu def mhm. de quatre ans bu ñu évaluer yéen ñëpp xam ngeen nii moom mi gañewu fi lenn lu war a mën a tax wala mu def ko ci rek basket bi que que ça soit dans euh, dans le championnat local ou bien à l'extérieur lenn lu war a mën a tax gars yi war na mën